Windows doon am 5 clients benn client la ñuy parce que euh, nit ñi ñemewuñu génn donc loolu di indi encore une fois li nga xam ne moom la doon wax léegi maanaam nit ñi dañoo sonn ci tëju bi nit ñi dañoo sonn ci yi nga xamante moom mooy xew jamono jëlee te li ci gën a doy waar moom mooy euh, il préfère même en un moment donné prendre le risque euh, en tout cas pour ñëw ibbi seen magasin parce que ci loolu la ñu yaakaar encore une fois pour mën a am li nga xam moom mooy seen dépense quotidien donc encore une fois loolu c'est des situations boo xamante ne il faut ñu bàyyi ci xel et j'en appelle effectivement comme Cheikh ni nga ko waxee à la population lenn rek lañ ciy yokku ci wàllum tabaski bi di waaj a ñëw aussi tamit mi ngi effectivement euh, am na ci ño xamantene ni bo len leen euh, Sénégal surtout Dakar bu tabaski di waaj a ñëw ci ñu bari ñom té dañuy défar ay daral pour jay xar mais bo len seetloo gisagoo leen benn ay benn ñaar ñett daral rek ngeen gis parce que aussi tamit ñoom il sont du ñu jël risque dem di defar ay daral yoo xamante ne nii manifestation dafay am ba après lors yi nga euh, li nga xam ne moom la ñuy jaay parce que li euh, xar yeeg yu demee noonu duñu duñu duñu du ñu mën a euh, li nga xam ne mooy gaz lacrymogène yi ñuy sànni yu demee noonu mun na am ay njeexital ci ñoom donc mhm. boo leen seetloo bu baax a baax à l'approche de la tabaski parce que l'idée de ci tabaski fu mu que nii sori bëreetul ay 20 jours. 20 jours am na benn Mansour bu yore ay xaram. mais du ko indi exposer comme manifestation am Cheikh job ñëw yenu xaram non parce que lolo fi nek c'est-à-dire que am na ñuy rex du question manifestation mm-hmm. c'est que ça il faut que nous ñi dans toute manifestation à travers le monde. bu amé manifestation par exemple ñuy wax Black Lives Matter sur les États-Unis mm-hmm. mais am na ñoo xam ne concept bob wala loolu la ñuy mais à côté di nga gis ku ci rax ko xam day ñew toj magasin yeenu télé xam nga Black life Matter ak yeenu télé ci bir magasin wala frigo wala wala wala micro-ondes day am ñu ci rax ñoo xam dañuy profiter ci situation parce que amuñu woon dara seen kër wala amuñu woon nangam seen kër pour dem xam nga kiy yenu ay saaku pombiteer ci Auchan jël chariot mel koy ndugg te duggul jël chariot la ci bir def ci chariot la soxla jël tànn mu ko neexee mais wax jëndoo woon na profité ci manifestation. ku uh-huh. def lu mu bëgg. Uh-huh. ci anglais dañ naan ay riot am na euh, mooy maanaam. dafa am ñu ci ñu ciy rax. dugg ci pour mën a jël seen la ñu soxla euh, donc yooyu yëpp ci wàllu koom mais tey euh, Cheikh wàllu koom boobu sénégalais xam nañu day taaba taaba pour joxe dépense quotidienne ni ko. Euh, Anamine Minton expliqué tout à l'heure man suis am 2000 francs def de mhm. internet euh, mobile bi. Mhm. maanaam de ko euh, c'est pas une publicité hein, par Wave Orange Money wala par nangam parce que à internet transactions transaction financière mhm. mais ñu am na ñoo xam ne feyeeku ñu woon seen salaire de. Mhm. parce que on est je pense le quoi le 5. le 5 am na ñoo xam ne jotaguñ seen salaire. léegi am na ñoo xam te ne jotaguñ seen salaire. bu ñu demee ba ne la ci wàllu internet mobile. Mhm. la ñu war a defee ay transaction nga jot message bu lay xamal ni sa salaire positionné na bu dee banque nga jóge nga nekk wala ñu yónnee la ne la léegi yónnee nañ la ko par Orange Money wala par Wave wala par Free euh, Free Money mhm. mais da ngay dem pour retirer ko. ce que Orange Money yi ñuy tëj boo demee doo am. doo am noo ko mën a retirer banques yi ñuy tëj nga wax BCEAO wala CBAO am na ñoo xam ne foofu ma foofu lañ domicilier seen salaire mais duñu mën a am accès ci seen salaire. bu banque yoo même tey envoyé communiqué message seen ay clients. ni leen dañuy dañuy dañu duñu ubbi parce que tout simplement. parce que dañuy ragal ñu ñëw songu leen wala mu mu am lu lu lu dal seen kaw. ci wàllu koom ba léegi regarde ces jeunes yi nga xamee ne privé nañ leen te yore ay moto Jakarta. trois jours d'affilée. jeudi ba samedi ci zéro on se souvient. sur le plan économique j'aurais bien voulu un économiste ay suñu genre les yàlla Lo. on mhm. y un peu sur euh, les conséquences mhm. économiques de ces jours de manifestation. le premier mais ça ne date pas du premier. parce que avant déjà. ñu bëri teg nañ seen i commence ba ñuy wax waxu dañuy suba lañ koy àtte ci mbirum Mame yi Niang ak mm-hmm. yooyu depuis 2021 sax commerce yu bëri am nañu ay jafe-jafe euh, femme bi ñu wax ne ni 500 millions la ñu lañu daanaka sàcc ci wàllu commerce bu mu noon def mm-hmm. mais kooku benn la ci ñaata nit ñoo ñoo ñàkk seen xaalis ci loolu mm-hmm.

am loolu la ñu loolu la ñu bëgg te loolu lañuy dund sénégalais ku xam sénégalais xam ne euh, nit la koo xamante ne nii ci jàmm dong lay woy ci jàmm ci jàmm dong lay dox. Mm-hmm. di ñaan suñu boroom mu def jàmm bu baax a baax a baax ñëpp delluwaat ci seeni activité et euh, ñu nekkaat si euh, xolal. xaw ma ku nekk xaw ma ku nekk ci régime waaye. mi ngi noonu donc donc caala daal loolu. waaw xam nga lii waaw vraiment innocent waaw wallaay wallaay la wallaay xoolal après ñu ne non ce sont des manifestants <laughs> ce sont pas des manifestants dañ cee dugg parce que situation moom moo tax moo leen may ñu mën cee mën cee baax yàlla baax na incha allah waa kay jërëjëf waa ñu def ba jeudi man ba ñuy manifester. lacrymogène lacrymogène eh, ba ma ko waree mos nekk naa étudiant nekk naa élève xam naa luy lacrymogène nekk reporter di dem sur le terrain dam naa fi boobu maa ngi Sud FM waa Sud ñu may dégg sama tànk mhm. parce que ci manifestation ñuy sànni lacrymogène ca cathédrale bu Dakar mhm. ça c'était en 2000 euh, xamatuma ban année la woon mhm. encore boobu manifestation yi tar na mooy ca la sànni lacrymogène ca Zawiya El Hadji Malick 2012 2012 non non avant am na lu ñu sànni lacrymogène ca cathédrale bu Dakar ba ci fi prêtre yi di nekk ci ginnaaw noonu lacrymogène yi dugg fa bu ñu génn mu am benn coow lu ne kuru ci wàll boobu xam naa lacrymogène de cheikh lacrymogène yi ak yi nag ñoo bokkul yëpp lacrymogène yëpp lacrymogène la xam naa lacrymogène dégg nga nag demande d'explication yow di nga xam lépp la lu eh, man de moo lacrymogène Kébémer keroog la ñuy doog a ñamosti lacrymogène yi mosuñu xam lu mu saf nag ndeysaan sama waa dëkk waa keroog lañ ko fa mos a sànni dañ doon manifester xamul leen loolu yéen ay famille ngeen teg leen ko ci suuf waay bu leen ci bokk yéen a waa jof yéen a yam jàmm rek waaw mi ngi noonu chaya